waaw sëñ maam Thierno bis boobu de dama cee am jàngat yu bëree bëri sëñ maam Thierno ndax mu Mountakha dafa am fu mu taxawee mu Mountakha dafa nekk wuutu sëñ Touba te ku wuutu sëñ Touba yaa wuutu yonente bi salaa salaam waaye ku wuutu yaa wuutu la yàlla waxoon inna jaalnaaka xalifatan fil ardi xalifat fil ardi yaa ko yaa ko wuutu ndax lii sëñ Mountakha def nii damaa ne bu ko nit ñépp xamoon adduna bépp ñuy jug sargal ko ci. àdduna bépp ñu sargal ko ci ndax fii corona bi toll sëñ Moussa sëñ Maam Thierno ñu ngi tàmbalee woon deux mille dix neuf corona bi ñëw deuxième vague ñëw ba troisième vague ñëw ba quatrième vague ñëw te loolu lépp jullit ñi sax amuñu ci xalaat te jullit ñi seen xalaat ak seen solution ma yàlla nee na nan ko ñaan buñ ko ñaanee may leen ndax ñaan ngàndaye jullit la waaye na nan sarax sëñ mu taxaa ci xarañam ndax bo xolé yonent yi njëkkee benn Israël bu leen yalla mosaan tak natt yu mel ay score ay masak yi danaa ñëw ba ci Seydina Moussa na ko ñaanal ñu yalla ñaanal ñu fa fad'u la rabbaka ñaanal ñu yàlla lii nii yàlla dindi ko kon nak yag na fi yalla wacc am nattu musiba te ñëpp neena corona bi nattu la mo suñu taxa jël responsabilité ay jitu ca kanam daal di woote daan ne nan ñaan yalla awale ko ci alcorane yalla ki war awale ko ci khasida loolu bu ko nit ñi déggoon waxuma la ak murid waaye tijaan yi laayeen yi mboolem tarixa ba fi nekk mboolem ku ne àdduna da nga ñëw ànd kook sëñ Muntaxa li muy def ndax xam na la sëñ Muntaxa la lay ñaan sëñ sëñ sëñ maam Cerno ñaar la ci ñaan nee na ñaar fi àdduna bi tool mooy mas mi na fi jóge loolu am kon loolu dañuy ñaan suñu borom. kon dañuy ñaan bi. ci barkeb sëriñ bi. sëriñ suñu borom fi mbas mi. suñu bi suñu borom jëlee fi mbas mi.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 ta borom ta nak suñu dafa fu mu fu mu discours mourid yëpp dañ ci wara indi ay jangat xol ci seen bop nak suñu Muntaxa day waxe kaddu suñu ju baax di waxe kaddu garanti bi di waxe kaddu làmmiñu suñu borom ci kaw suuf ñet yëpp la taxawé mo tax discours am da koy yek te bu ko yegge ko di dang koy yek mo tax bëgg naa murit di ko gëna baye xel suñ mbokk yëpp sëñ Muntaxa nekkut xalifatu mourid rek dépassé na loolu sëñ Muntaxa xalifatul ardi la sëñ Muntaxa xalifatu aduna la jëf jum jëf rek. weesu na mu rëy ñaata millions lay def ko coronavirus bi magum bu am. da koo jiital ba noppi boole ko baatin. waaw parce que amut benn benn garab amut. waaw ñi ngi leen di bàyyi xel yàlla ka moom la wax. nee na nee na nan bàyyi xe nee na nin lu mën a xew nan jiital yàlla dégg nga lu mu wax lu xew leen lu xew tey corona bi xew de lu mën a xew nan ñaan yàlla te nee na tamit suñu taxaa nee na am nan droit ñaan yàlla aw la ko ci li suñ Tuubaa def muy xasida yi ak alxuraan mi nga xam yàlla alxuraan yàlla ko bàyyi kon est-ce que nit ñi ni ngi dégg suñu taxaa fu mu toll suñu taxaa discours bu mu def trois minutes nangam la télévision yi ak rajo yi ak internet yi dañu waron diko interpréter par nank ak nank nax njariñ yi ci juddoo ndax dem na ba jullit ñëpp ragal nan suñu ñu xam masque moo koy ñëpp moo koy takk xool nu mu koy takk fu dem fu mu dem da koy takk jël na àllam def ci corona bi wax na ci soññoo ci def na jël na ay ndimbal jox dëkk Touba jox fu ne kan léegi lu des lan mo suñu suñu xam bi mu joxee ay millions ñu mu jaatise ko lan moo tax mu woote lii mu woote nii ci murid rek la plateau télé benn télévision moonte jëf ji discours am bi rek ba ci li nga xamante ne sax mooy bii bisu xasidaam yi dañ ko war a teg télévision da ko war da ko war jàlle adduna bépp bàyyi xel ne kii li muy def ni daa bëgg a sawe adduna adduna bi ñëpp ne ci jafe-jafe sëñ Muntaxa bëgg leen a sawe jaarale ko ci ñaan ndax jullit bi ñaan boo dee ñaan da ñaan ku yàlla sëñ sëñ maam Cerno nee na sëñ maam Cerno borom daaru nee na kii fa sëñ Tuubaa toogloo xalifa yàlla da lay rus kër si mu tax yàlla ko rus kon nan bàyyiwaat xel bu baax a baax xam ne ñaan gii mu def nii dem ali met la jele na dama xam lim jëf ak lan la mën a aduna rot na Senegal. na corona bi du leni gis leni gis nak lu ndut gis nak yalla rek ci man dara moy ñaan te yalla bi ngeen ma ñaané ma may leen na ay dinaa silal moomin kon ñi ngi ñaan seen mundu Mbàkke yàlla yàggal ko fi loolu téwéral ko wa ñewon na fa ñewon na ci jumaaja wa lima wa lima gëna li ci mbolo mi mooy la suñ jumaa suñu xaw wax suñu taxaw nee na moom dafa lu ndam xol nee na xam na ne murid yi seen seen xol sëñ Tuubaa rek moo ci nekk te loolu moo xam ne mi ngi koy ci discours bi bi ma demee ci jumaa ji loolu rek laa gis. yenn noo jàng xëy sept matin ba cinq lenn du ñaan gi lu dut corona bi yàlla na fi jug ci àdduna bépp yàlla yàlla na am jàmm loolu rek la dem fas ci corona moo tax su ci murid damaa xam ne màkkatal mu kanam sa tëj ngeen ko dëkk jullit ñëpp bëree bëri tëj ngeen seen jumaa seen jàkk juma ma xam rek sun borom kon yaakar gi amul lepp ci Touba lam ci waxoon kep noko Touba lolou yalla dogal ndax Touba gep ñu juk murid yep di ñaan yalla te bu len neexon dañuy naan man ak ñepp ci bokkam do dootuñ ñu wota ñaan yalla waya ñu ñaan yalla Touba sama xol ci diggu moy la señ ci baa señ suñ avocat gi mu nekkoon avocat julit ji ba tax ñu yobuko ci geejga lolou señ loolu taxawé tay demu ci mo sama xol ci si diggu yi ci bis bi. murid manam ni ñu doon doxale bis bi démb. Hmm. solidarité. Mm-hmm. ku ci nekk di indi mm-hmm. mm-hmm. neen na ñaan tey naan tey ree. ngir jëm sëñ Fall. tax waaw image yooyu damay xam ne ñaanuk sëñ Tuubaa gu nangu la ndax sëñ maam ndax yëngu ne sëñ Tuubaa moo ñëkk a secrétaire jëmmam joxe ko ngir doomu aadama mën a jariñu suñ Tuubaa moo ñëkk joxe boppam ak ruwam tey la ko tubaab bi pour ñu mën koo faagaagal te boobu suñ Tuubaa bi mu koy def bëri na moroom sëriñ yu fi nekk loolu la ko yàlla faye moo tax murid yi lu ñu yor ya dañ ko joxe ngir sëñ Tuubaa ba pare di la ci neexal ba pare di la ci kopp koppal tubaa rek la am amul fen màkk ko fa dem hôtel da ngay fay lépp da koy fay màkk Tuubaa rek ngay ñëw ñu la jox añ naan gratuit lekk gratuit loolu mu yi bëgg bëgg sëñ Tuubaa ngir yàlla rek. moo moo ne ñoom ndax murid day jaay alalam jënd ko Sëriñ Tuubaa ak yàlla jaay boppam jënd ko Sëriñ Tuubaa ak yàlla murid rek dong la am moo tax yéeg boobu laaj damay xam ne murid ñu bëgg Sëriñ Tuubaa lan waaye nag ñu ñoo nga ku leen ñu ñoo nga jaxe seen alal ngir Sëriñ Tuubaa loolu fii loolu ënn bépp la jaaxal waaye Sëriñ Tuubaa rek ko am kon murid faaw ñu gën a fagaruwaat gën a xam Sëriñ Tuubaa mooy kan xam nañ ko sax bëgg nañ ko sax waaye ñi xam ne am moo raw jamaa maanaam bés sëñ bi lim ci dëxëñ dafa bëri. waaw maanaam mbooloo bi ni ñu ko kiiwee. Hmm. maanaam xéewal ci sa hmm. di waaw hmm. soppi sarax ci a wàllu ñaar yëpp ci la dajee sëñ man tax ma waa góor xam nga tax day dajee sarax ak adiya adiya moy seigneur yenn sama adiya dang ko jox ko bëgg ta mourid yëpp seigneur Tuubaa lañ bëgg moo day dugg ci adiya ngin mourid yi bëgg ngeen bëgg seigneur touba ba bëggante seen bir sarax bi day joxe ñam gi ngay joxe kon day taxaw sarax ak adiya te ñaar seigneur touba moko waral te ñettel ba ma am coono jaxe loo xamante li ngi koy joxe yow dang nga mekti mégte mégte gi nga cee am ki nga ko koy jox dang ko koy jox ci mekti ak de ko ci sarax naw nga ngi daal kay lek li du jeex. <laughs> moo la sëñ senegal Sénégal waxuma ak Sénégal wa andu ngor bi la dellu si sax la ci senegal sak kon loolu mouride lu mata baye xel la bu baakha baakha baakha a baax mooy murid ñu bëgg seigne Tuubaa lan ñu mëna roy bëgg yant bi lan wa ñu bëgg nga wa nak ñu mëna solidarité lan ci seen bir wa ñu mëna a lan ay mbir ta mouride loolu lan fi nekk won nak def def lo xamantene du nek inter mouride inter senegal gep lay doon mouride fofu la dox intérêt bo xamantene ne and bepp lay doon te li warana na ko seigne Muntaxa lim def ni warana na ko sëñ maam Thierno. tey bu dee daganoon tey dañuy dee suñu xol yëpp sedd na barke Serigne Touba damaa kontaan billaahi wallaahi barke Seexu Xadim war na Serigne Touba bu ñu amutoon sëñ Touba dañuy fay billaahi waa kàddu yi tàggatoo yi mooy damay fi maye benn secret ndax fi jamono toll mooy coronavirus lañ toll muy secret boo xam dama koy maye. moy kep ku bañ ku bañ feebar corona dal ak nawet bi nak da bëri ay yenen feebar ci rax yoo da ci am xanaa dinañ gën wax ci ene émission moy kep ko xone na dafa nga bismillahir rahmanir rahim nga def ko 28 fois nga raay ko sa kanam kooku wax na ne feebar bi yalla wacc ci nawet feebar yi mi wacc du la dal feebar nak bo waale ci corona nak corona ba mi mu ngi ci bi lolum mom sekkal la bo xone ne dama koy bàyyi xel kon nak ma ngi ni ñepp di saara ñepp lu ci jub ci yàlla la lu ci dëng ci man mii la ak laay biir la gox na ko